Thank you. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar rawatina yéen ñu bëgg fi wasaare lamb wasaare TV kon diñ ko defee rek ndax yéen a ñu taamu moo tax chaque jour lépp lu leen bëgg dañ ko def ah, tey nag euh, ñu ñëw seet si nag koo xamante ni ah, bawol bawol lax mu nekk koo xamante ni muy coaché mbër bu mag ndax euh, mbër moomu sax ñi ngi naan am na combat wala amul combat muy tafaatin mbay ñi nag mu nekk koo xamante ni coach am la ñëpp gis nañ ni fan ah, yi làmb ji VIP dafa dafa dafa tàng Gris Bordeaux euh, euh, euh, kii nu mu tudd Père Gaston Mbengue nga ah, Tapha Tine Pape Thialis Faye gis nañu ne combat boobu taxaw na wala taxawul di ngeen ci am léegi lu leen leer ah dañuy jox nag ah, Mbaye Gningue mu nuyoo après ñu dugg ci waxtaan bi Mbaye Gningue maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di la siyaar la bal ak di la bal ak di nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe di nuyu mbokku Sénégal yépp rawatina nag euh, waa gaawaan sama kër sëriñ maam Mor Mbacke xam ne barki dem la gën àdduna nu ko jàll ñëpp di ko siyaar ñëpp di ko ñaanal yàlla yokk leeram nuyoo bi am na solo mais mbay ñi nga xam yéen instant bi da ngeen fi def loo xamante ni ñëpp instant bi moom lañuy ñuy déglu te gars yi bëgg nañoo bëgg ay leeral ndax ñu bari dañ ne tafaatin booy ñaa dañ naan combat bi taxaw na wala taxawul combat tafaatin booy ñaa combat bu taxaw na waaw combat boo Niang Tapha Tine mun nañ ne taxaw na mun nañu taxawut parce que euh, waxtaan bi dafa des lu bëri bari waaw waxtaan bi des na lu bëri loo xam ne nii nag ci promoteur bi la tàggee mais tàggewul ci ñaari mbër yi waaw. ci promoteur bi la tàggee waxtaan bi dafa des lu bëri comme naka. Mhm. waa boo déggee man la waxtaan bi dafa des lu bëri mooy maanaam xam nga combat di ngeen waxtaan bu déggoo ci ay kaddu ngeen tenk ko foofu mais bu ngeen ko tënkee ci kaddu yi noonu am na date boo xam ne ni ci ak boo xam ne mu ngi àggee ah dañoo war a joxe avance waaw xam nga itam combat bu taxawee ñu taxawal ko waxtaan bu déggoo te avance bi duggagul it mun nañu wax ne taxaw na ci ay kaddu mais taxawul ci ay kaddu ndax li des dafa bëri ndax làmb moom comme moom tant que jotoo avance wala nga dem seen ñu régulariser ko taxaw nga wóoragul waaw. mais Mbaye Gningue yéen ñu bari dañ leen tuut benn baaraam mhm. parce que dañ ne tafaatin dayo bi mu toll ak tafaatin instant bi fu mu toll wal yéen ce que jaadu na mhm. tafaatin ñuy laam-laamee combat am mhm. ngeen dem def fi benn jàkkaarloo tafaatin wax fii booy ñaaw wax fii te laa loolee naada mais loolu est-ce nga baal ma est-ce loolu du staff bu cuune moom moo koy def déedéet du question sax du cuune parce que nit itam boo waxante ak sa goros moroom li nga waxante ak moom moo waxante ak sa moroom ah léegi nag comme dangeen ngeen a waxtaan bu déggoo ci ay kàddu ñu ne léegi dañuy dem pour toog waxtaan ñu sol blouson wax ne kat combat bi diw taxawal na ko mais su ci giw taxawal googu taxawal nag dañoo dégg woon ci kaw ay kàddu ah. waaw ah, ci kàddu yoo xam ne nii ñun dafa war a joxe avance waaw xam nga dafa waroon a joxe xam joxe avance waaw mais avance boobu nag li nga li ma waxante woon ak moom ñun loolu la ñuy xaar ci moom. waaw mais tey yéen comment ça fait ngeen ñëw sol blouson. Mhm. ñëw toog àdduna ñëpp journaliste sëpp wër leen. te yoroo leen dara Pape Thialis ba leen contacter ne combat booy Niang da bëgg ak Tapha Tine da leen wax da ngeen di ñëw rek daf jàkkaarloo ma soog leen jox avance. non déedéet du question ne dina ngeen di ñëw parce que boo ñëwee combat boo waxalee combat boo da ngay ñëw ci signature bi boo ñëwee ci signature bi bu ngeen waxtaanee ba pare boo signé ci la ñu lay jox sec. mais ma yaakaar ni bala ngaa signé bala ngaa jàkkaarloo day fekk ñu jox la xaalis parce que nit ki mënoo sol blouson ba pare taxaw ne combat taxaw na te yoroo dara mais loolu tamit ah. ah. maanaam jour bi ngay waxtaan suur boo ñëwee ba ñu signé ci jour boobu suur boobu lañ lay jox sec waaw da ngay jël sa sec nag nga dem mais souvent dafa am sec yoo nag da leen di jël boo demee kon bu ngay dem ñu la ah kon bi kat amul xaalis xam naa suba lay xaalis. waaw mais joxoon nañ leen chèque. waaw loolu moom am na jox nañ ñu chèque. chèque bu ñaata. ah déet <laughs> <laughs> waaw mais xam nga chèque da ngay dem banque ñu ne la ah compte bii kat amul xaalis wala chèque bi kat. Ah, dara dat sangam lañ ko lañ ko war a retiré waaw noonu la fa demee. bi. ah waaw chèque bi mu ngi mu ngi kër gi mu ngi. Ah, waaw. mais kon yéen mën nañoo jàpp laal ngeen. laaluñ. parce que bala ngay laal dangay am xaalis. Ah, ah waaw xam nga da ngay dem si contre bi boo demee ci compte bi compte bi bu amul xaalis kay. kon kay xam nga ne jotagoo jotagoo da ah da ngay dañ la jox chèque ne la demal si compte boo demee nga dem si compte bi nga demee si compte bi fekkuloo fa xaalis ñu ne la bi kat ah amagut xaalis après yow nag da ngay xaar boo xam file ak deux jours wala trois boo xam chèque bi compte bi kañ la am xaalis. ñaata jour ngeen toog waaw parce que combat bi mu taxawee ak léegi parce que boo ko seetoo léegi mu dem deux mois parce que un mois quinze jours parce que na ko waaw parce que euh, kañ la bi ñu dindee couvre foofu ak léegi bi ñu koy boo euh, ay vingt et un xam ak léegi boobu xam nga léegi yàgg na waaw te it comme da ngay wax nit ki da ngay waxante ak moom ngeen waxante lu wér mu ne la ah sec bi kat comme code bi amul xaalis léegi da may may boo dat sànqam. da leen a a nax. non naxut ñu boppam lay nax. parce que boobu mun naxuñu boppam lay nax di waaw ba ngeen demee ci banque ñooy leen chèque bi kiiwul ah. Ah, ah, compte bi nga xam te li ngeen war a retiré xaalis amu fi léegi yéen nan ngeen réagir est ce que ngeen après woo ko non xam nga ne yow xam nga ne tiit ki soo ko joxee chèque mu dem compte bi amul xaalis oto ma demee ni ko ne de man kat a retiré chèque bi mais compte boobu dañ ma ne amul xaalis waaw ah waaw ah mais après léegi dafa dafa am date boo nii dafa ñu ko ñaan pour ñu may ko ak si waat fii. da ba ba ngeen di jàkkaarloo dalee na d'ici un mois laa leen di jox avance. déedéet déggoo lu ma la wax jour signature bi la lay jox la euh, lay jox sec. mais ngeen ñëw jox leen mais nag ñun bu ñu jël sec xam nga sec bi yow doo xam ne duñ xam nga sec bi duñ buñ la koy wax ne du duñ ci bind bi sec bi dañ ko baare parce que ku lay jox sec bi ni sec baare doo ko jël ah ku lay jox sec da jox sec rek daal di signé def lépp yow nag ne sa sec mu ngi nii yow nag boo xëyee yow yaay dem si banque bi bi nga xam ne nii boobu la sec bi ne fi nga ko war a retirer soo demee bu amee xaalis nga réer boo amul xaalis kat nga ne nga xam ne kat dañ la ne kon nga dal koy soog woon ne ko ah man kat dem naa ci banque bi mais nee na ma bi amul xaalis. est-ce que yaa ngi Boy Niang bokk leen sax ndax Boy Niang ñam na tuuti te yéen ñama ko de. Boy Niang waaw mais Boy wax dëgg yàlla xaw aw ma ci moom lu ko leer waaye nag loolu nga ni ngi koy dégg ñu ne na dara mm-hmm. waaw mais xëy na moom li muy ñam. man ak li may ñam eh, bokkuñu. ndax nga ne bokkuñu. non bokkuñu. ah da ngaa bëgg wax yàpp cachet booy ñam. déet du waxuma wax kas sax waaye xam nga. Ah, li may ñam ak da ngaa bëgg wax kay ah, ah, waaw xam nga loolu xam nga affaire moom waxaale rek. Mm-hmm. da wax waxaale ba juboo. Mm-hmm. léegi nag ah boo ñaa la mu juboo. affaire la man nag li ma li ma juboo. moom affaire la. Mm-hmm. man maay man itam may jox avance itam man maay kay wax kay ah nangam nga may jox waaw. mais est-ce que Pape euh, maa ngi la dégg bërki démb nga génn suñu làmb ñu leen di nuyu au passage. nga ne ñaata kii nga leen may buñ ñëwul combat bi. waaw mais xam nga comme moom dafa moom dafa dafa waxoon ne ko may mais comme date bi mu bi nu waxante woon man ak moom eh, kañ la tey la lan tey la mercredi kon kon defe naa ne date bi pa passé gul kon li li nu waxante léegi waaw ba léegi. bu date bi bu kiiwee léegi yéen da ngeen jàpp ne amoo leen komba waaw bu fekkee date bi jal na bi mu la waroon a jox avance bés bu bés bu date bi jeexee te joxewut damay jàpp na kon combat amatu fi keneen ku keneen beneen promoteur bu ma soxla ma wax ak moom. kon ba léegi mën nañoo jàpp ne combat euh, Boy Niang ak Tapha Tine taxawagul de. Ah, taxaw gi daal moom leeragul nañ wala ñoom dañuy xaar boog Tapha Tine ne leen bëreetuma xanaa lool la ñuy xaar kon. est-ce que nekkul tamit euh, corona bi ndax ñu bari ñu ngi naan deux mille vingt et un làmb doo am est-ce que tamit promoteur ragaluñ loolu moo tax tamit kiiwuñu dugaluñu. waa mais xam xam nga coronavirus bi dafa am su fekkee ñoom dañu ko ragal bu ñu taxawalee combat bu ñu taxawalee comba parce que itam bu ngay taxawal combat boo ko garanti nit ki yow doo ko teg keneen du ko teg du dem dox ay soxlaam parce que contrat jàmbur soo ci nekkee yenn yëpp doo ko mën a doxi am na ité yoo xam ne di nga caa war a dem bu la nee am tukki yoo xam ne da ngay a tukki dootoo ko mën a tukki parce que contrat jàmbur nga ne te contrat jàmbur nag soo ci nekkee dem di defi leneen bu leneen fekk la ca da ngay tooñ te nit kii it warul signé wante ak sa moromas gor contrat ba pare nga dem def ca leneen loo xam day yàq parce que gis nga ko bu tey ay nit def leen promoteur fa may taxaw naa wala lii la bëggoon yàq na sama xaalis te man bugguma nit ki suñu werantee mu ay ma bëgguma ko waaw ah déedéet man kenn non man kenn du ma yey parce man lu may def dama am fu ma koy teg ci leer nañ laa koy teg waaw ñu bari ne bëgg lu yomb moom moo taxoon ngeen bàyyi la de dem di njëkkante di jël booy ñaa Niang combat bi ñu ngi naan taxaw na wala taxawul jëloo goo leen avance te Tapha ak Lac de ñu bari ñu ngi ko doon dox ba am na promoteur bu ci bëggoon nekk li tax yéen ngeen dem xaalu kay da ngeen yaakaar ne fee moo gën a yomb wala. déedéet ñun tey bu ñu sañoon du ñu bëre kenn ku dul Lac mais kon li tax ngeen gaaw rek jël xam nga ne loolu du ci ñun tey ñi nekk ci làmb ji tey VIP bi fi ne nii tey tey tey amut ku ñu ci demut jox avance Tapha Tine nga delloo ko. Mhm. laajal ñëpp nag. képp ku ma ne ñëpp laa wax. ma ne ñëpp ñëpp kay jeexal na lépp. VIP bi ku ciy takk ngem taxaw nañu jox la avance bi nga delloo ko dina doo ko la. la dëgër na jël avance bi. mais pourtant Lac de Guiers na. doo ko ay wax la dëgg. nañ ko mu d'accord. man gis naa interview bi ñu ko def kay ci télé muy wax te xam naa ne la muy wax man xam naa ne gëmul la muy wax. Ah, gëmul woon la muy wax ne bu day jëlaat tafaatin daan ko. Hmm. gëmu ko. kon dina wuute. moo la ko gën a xam soo ko sax di wax ni na ma ko defoon bu daan ko xam na ne mënatul def loolu. moom laaj ko moom soo ko laajee lii la lay wax. Hmm. fa mu ko wax ba nit ñi di ko wax ba muy agsi yegg naa ko di. Hmm. <laughs> waaw. kon daa am wax ci suuf bañ a wax fi suuf. Ah. yëf yi attention de. boo amee dang na it am na kok-kok ci suuf de pire sax waxee am na luy daw ndakaaru de xam naa ci dara de waaw mais père mm-hmm. sànq da ko wax euh, pour yooyu suivre sur Wassare Lamb euh, mm-hmm. mm-hmm. moom lañ dala mu nekk coach Tapha ba pare bokk ci li nga xamante ni moom mooy encadrement am lépp ndax nekkul coach kese mais Mbaye Gningue euh, beneen bi di gars yëpp li ñuy coow ñu ne tafaatin Tine yéen mën ngeen a laaj ku ne sauf Modou mosoo leen taxaw laaj Modou Lo lu war a loolu. su suñu waxee dëgg rek te yàlla wax dëgg rek wax dëgg te yàlla rek tax ñetti yoon avance su dem na ci Modou Lo ba ñu wax bu ne bu bu subaa ñu jël si ko ñu ne may leen ñu ba soog bu subaa ñu ñu bañ ko jël si. kon Modou Lo delloo na trois fois avance ñetti yoon Modou Lo delloo na ko avance su Tapha Tine man du wax loo xam ne nii lu ma leerul la Tapha lu ma lu ma ci wax nii dëgg la du ma ci wax lu leeru Modou Lo deloon avance bi ñetti yoon kon nga xam ne tafaatin bàyyiwu fi kenn tafaatin ñi ci kaw amul ku mu fi bàyyi. mais ñu naan euh, Modou Lo ak tafaatin dañoo bokki bagage moo tax combat boobu mosuñu koo kii dox. bokkuñu dara. bokkuñu bagage ma ne xanaa ci Adama nu bokkee ba nu jógee ci Adama bokkuñu dara. non bokku sëriñ lañ la ci Adama ak ba léegi bokkuñu dara ñoom Modou Lo Sénégal gi ñuy bokk mu yeewoon mu yeewoo la nu bokk. mais bu loolu bokkoon leneen. mais taxaw laaj ma ne su su Modou laaj ko. mais Tapha ñaata yoon lañ ko jox avance bi mu delloo ko. mais Tapha Tine mosul kan Tapha Tine. Tapha mu laaj la. xam nga tey ñun Balla Gaye la ñuy dégg ay la de Guiers. Pape Diaz bu ko bu ko bi muy bi muy bëre dernier combat bi kan la woon na bëre après. ah ok Tapha Tine bi muy bëre bi muy ah, ba mu coow loolu coow loolu fekku la fi. ok lañ joxoon avance. waaw coow fekk Pape Diaz ba muy jël ba muy jël Balla coow loolu te fekku la fi. ok kon avancement. Ah, waaye yow. Hmm. attention de nelaw ñu de. Hmm. ñu ngi xool di xam lu baax lu ñu jëm. Hmm. waaw. beneen mooy dañ fay gis cent pour cent parcelle. cent pour cent géejawaay. cent pour cent yëmbal cent pour cent pikin. tey ñu gis ni euh, yéen bawol bawol yi. li tax defoo leen ay cent pour cent ndax gis nañ tamit ah booy ñaa bawol bawol la de te tafaatin tamit bawol bawol la loolu nan la mën a kiiwee yéen nan lan nga mën a seetaane. booy ñaa buy dem Sambe ga mu dek suñu dek lay jaar ñun xam nañu ko. buy dem fa mu dëkk ñun suñu dëkk lay jaar jal jëm fa mu dëkk ñun xam nañu ko. <laughs> yow. moo dëkk foofu. déggul déggul moo dëkk foofu xam naa bu baax. fa mu dëkk ah waay yow moom ngay wax. bawal ah, du piir de. booy ñaax bawal ñu nekk bawal bawal pire. ñu nga fa. di leen guddi di leen bëccëg. boo ñaam pikin pa pikin waala pikin lay guddil pikin lay bëccëgal. mos ngaa dégg mu wax ba tudd bawal waxal rek. kon mos ngaa dégg yow ñu tal ko micro mu ne maa ngi sant waa bawal doo déggoo ko fenn. ah ma ne loolu du tudd bawal bawal ñun ñoo fa moom ko ñoo nga fa doo tudd mbooloo. kon yéen bawal te xam ngeen ma ne suñuy ndey ak suñuy bàyyee nga faag nu wàcc leen fa ñëw Ndakaaru daan suñu doole. te lu nu amit fa la nu jëm te lu mu guddi guddi bawal la ñuy fanaan kon yéen ko gën a nekk bool bool. piir lanu ñun ñun piir lanu bawol la ñuy safoo. te hmm. <laughs> yow da ngaa gisul sax dama dama amul temps sax mais bawol sans frontière bi xanaa gisuloo ko ah. nga baal ma sax mais kii bi mu gaay bi ñu ko defee TFM xanaa seetaanoo <laughs> ah ngi toog ci kanam taxaar ngi toog ñëpp a ngi toog hmm. kooku mooy bawul sans frontière mais Mbaye Gningue mm-hmm. euh, ñu bari neen fa ngeen njëkkee mm-hmm. dangeen koo yeexi parce que lu leen dal ci àdduna yëpp taamu adversaire moo leen ko teg mm-hmm. ndax yéen xale yi dañ fee nekk di leen laaj yéen ngeen ciblé ay ciblé ay Bombardier bëree woon ngeen ak moom ne waat Balla Gaye comme rang boobu rek bañ a moytu ngeen dem ba xam ne nag instant bi année balance yi doy na ndax dem ngeen ba commencé xeeñ année balance ngeen ne dañ jël ki nga xam te ne moom mooy booy Niang boobu ñu lu yomb Bombardier kuy suut lu doo dal ci Bombardier Bombardier yow da xool catégorie gi Tapha Tine bokk ñaata nit ci biir ak Bombardier. loo fa gis. Ah, kan moo mun a duma Bombardier fi ci si ci mbir yi ngay gis fii amul tey jii ku ci jël Bombardier fi mu ne nii say mbokk nañu guddee reer mbaa ñu naaj bala seen dëkk dina naaj Tapha Tine bëggul lu de parce que ba muy bëreeg Bombardier dafa am lu leen boole cek moo leen boole dafa daan Bombardier dafa daan cek dafa daan cek dafa ne dafa daan Abdou Diouf moom mu daan cek jox ko cek mu daan cek dal di laaj Bombardier nan la fa demee mais bëgg lu yomb Bombardier ko bëgg lu yomb doo fii dal kooku da ngay wax leneen mais Bombardier rek nga bëgg lu yomb dal ci kawam. non dama ne la. Hmm. yéen da ngeen xaw a bëgg lu mooy hmm. bëgg lu yomb mooy. booy dañ leen doon laaj ci suuf. te gis na Tapha mu duggee ci Ama Balde. Hmm. la leen di dal yëpp fa leen dalee. ndax gis ngeen Ama Balde booy pikin bi. ma xam naa foofu nga jëmoon. Ah. xamoon naa fi nga jëm. Ah. Ah, moo tax <laughs> <laughs> mais loolu déedéet euh, Tapha Tine Ama Baldé daan na ko parce que bu leen fàtte ne Tapha Tine defar ñëw bere ak ay magam daan leen sooy bere nag di bere say moroom boo ñu jeex nga dal ci say mag daan leen bu sa rak dalee si kaw bu la daanee normal na. li metti moom boobu moom ci leen fekk si c'est à refaire moom doon dugg ci kalaaf bi. ban ci kalaaf bi. Ah, fay. kal fay di. ah Ama la fay. kalaaf bi. waaw ñaar defar la yam benn. benn bi rek moo fay lépp. déedéet. Ah, non ah, <laughs> parce que ni yaakaaroon ni carrément. Mm. da di ñëw mooy loolu raafale gars yi. surprise xam nga combat li ci gën a métti xëy na xam nga ne xamu ko dañuy wax ne la yow yaay favori mais soo nekkee favori wax la ko làmb ji tey hmm? su doon sa adversaire rek ngay béret kon dina neex. waaye su mag ñi génnee seen loxo ci boppam gone yi am di ku mu ci tase ba bu la nee wëññikul nga wëññikul. kon euh, Tafatine ama ah, mag ñi ñoo ci dugal seen loxo. ma ne la wax nii ah. bu mag ñi génnee seen loxo ci boppam gone yi ku mu daje bu la nee wëññikul nga wëññikul. du caaxaan. ñu xam ne ma ne yow seetaan mitiwut hmm. waaw seetaan mitiwut seetaanal rek. ci la nu jëm dafa mën a bëri ci la nu jëm du ñaan leen yàlla na ko yàlla sottal ak jam ko ñaan dafa mën a bëri ah, baax na euh, Omez Diagne mhm. ñëpp xamoon nañ ko ak seen ak staff bi mhm. ndax am na lu mu doon yokk ci Tapha mhm. mais depuis ba mu génnee ba tey ñu bari nee nañ bawal daal instant bi neexut Tapha Tine adversaire yi ko neex lay jël euh, exemple rek mooy ngeen dem ne seen combat taxaw na te recevoir e loon dara sol ay blouson wax fii ba ñaq mhm. ah lool rek euh, Omez daal am na lu mu defoon ci écurie bi Omez lu ah, fi def lu mu fi def lu ba mu Omez ki tax ñu xam la kooku la ñu war mooy kan mais Omez Tapha ne tax ñu xam ko mais Tapha mais mais Omez taxul ñu xam Tapha Tine Omez ba muy ñëw ba Tapha Tine ñaata combat ak tafaatin fan la toll omes moom moonu bàyyi mais ñun bàyyiwuñu ko omes bawol bawol la comme ñun omes su ma demoon seen kër tey da nga yaakaar fa laa dëkk parce que yaa sama papa daf ma ne kii sa yaayam sa bàjjan la parce que ñoo nekkandoo tool bi yaag papaam ak sama papa ak yaayam nag ñemewul la wax ne waa bawol booloo dañu koo dàq ñi ma wax na dañu koo xas ñi ma wax ne koo saaga. mais yéen a ko kii da ngeen koo xatal. déedéet lu koy xatale yow ki jël indi la ki jël indi la omes xamut nu ñuy tàkkee ngéem. Hmm. omes xamut nooju xamut galgal xamut caxabal omes loolu bu ko xamee grâce man wax la ko dama bëgg nga xam ne da ngeen di xel li laaj ñi ñi jar laaj. ñii fukk di daal reb naa lamb ji lamb ji di wax nii ñooyu xamuñu lamb parce que. est-ce que tey yéen Omez bu bokkoon bu bokkoon seen staff nii nii. leen dal nii ci combat Boy ñaa bi ak Tapha Tine gëm naa du leen dal de parce que moom ñëpp xam nañ ne macha allah dafa dynamique ci lépp yéen tey ku mel ne Omez génne écurie Bawol loolu amul dara lu mu wàññi ci écurie bi. man su ma déggee ngeen yooyu ay réer dafa may jàpp sax. Omez lu mu xam ci lamb écurie Bawol la ko xamee. Omes magam Moussa Diagne moo nekkoon directeur Dakar Dem Dikk magam man maa ko indi écrit Bawol rakkam la sax kooku mooy Moussa Diagne moo nekkoon directeur moom la Moussa Diop remplacé man maa ko indi woon écrit Bawol kooku moo indi Omes foofu te Omes ba muy ñëw foofu ci écrit ba amut woon lu ko jox magam moo rakkam bu moo ne Omes xamul bëre football la xam léegi na ñëw mu jàppale leen comme sama mag la sama doom bàjjan la comme sama papa ni mu ko waxee mu nekk sama grand mu nekk ak moom man ma aidé ko may ko loxo. omes làmb tey lu mu ci xam grâce à moi man la ci war a sant waaye waru seen kër parce que man maa ko may loxo te xoolal li may wax nii may wax nii dugguma sama ron lal di wax de danga maa dekk micro nga jagar may may wax parce que numéro téléphone ngi fii dama koy woo mu di ko ma koy laaj meer lamb su ci xamee dara man maa daa mais man dama soxlawul fu télé am man ma dem fa ne maa ngi wala ab rajo wala may yor man du ma yor samay samay di ay journal si laaj leen ma ngi invité ma loolu du ma ko def su suñu borom dogalee ma war a def ak émission rek dan na ko def man loolu du so doy bu fekkee loolooy tax ñu xam ma man kenn duñu ma man defe naa ne Alaaji Moustapha Ndiaye nag ko yàlla yërëm bi ma nekk équipe nationale ci ñi ma doon jëkk a dekk micro ci la bokk. Ah, <laughs> def naa fa juróomi at Mor Fadam mi bi muy nekk champion d'Afrique ñoo bokkoon néeg mu doon nit ku baax nag ku am yërmande ci nit waaw. Omes <laughs> mais dem ci football bi mu xam. mais comme lu ne def nañ ko ci Balla Gaye Tapha Tine lu ne def nañ ko ko ci. luñ ko ci def. Oh, kii yaa ngi su wax dëgg dikkee man bu ma deexee man dong ak sama bamel su ma deexee man dong sama bamel sama jëf rek affaire yooyu loolu ba mu génnee photo yi mu génne ko teg ñu toog ab saalam man ak sama adjoint entraîneur ak sama entraîneur physique ñu mu saal omes lañ toog nii gaa yi yor photo di ko ma leen man lii gëmuma ko. wallahi lal asim mosu gëmuma ko te it tey ni loolu du ma ko gëm. kon ma ne loolu gëmuma ko. li tax gëmuma ko. Hmm? man gëmuma loolu damaa yàgg ci sëriñ si di toog man Tapha Tine daa fekk may dem ci sëriñ bi toog du yàlla rek moo xam lépp waaye yàlla bu kumba séréna ne lu bëri boo gënee mu teg ko nii ma gis ko dinaa ne li lii baaxut. kon da ko defoon pour bëgg buzz. ah xam man lu mu ko doon defe de waaye loola man gëmuma ko te bu fi nu toll may wax ak yow nii gëmuma loola waaw. ba ngeen bëreeg euh, Balla Gaye si ngeen dàq ñu bari lu war waral loolu. dàq ñu kenn nag kenn ku ci nekk ña fa jóge nañu wax la leen fa jëlee au moins li ko jël écrit Baol Mbollo moo koy wax mais ñun duñ ko wax des bu taxawee wax ko ne lii moom ma jël écrit Baol Mbollo diw wala diw dana am tontu ko mais moom wax na ko parce que nee na équipe ba dafa dem ba benn instant sentir ci boppam xam nga rek am ñu koy xee pour mu génn. déggoo ma de préparation ya dañoo préparer ce combat ba mu des deux semaines mu ñëw sensé programme bi ma lànk ma lànk bi ma lànkee staff bi daal di daje ñoom ñëpp. ne lu tax nga lakk man leen kii wóoluwuma ko te la te loolu man maa ko waxoon ci kanamu réunion ba ñëpp di ko dégg. dama ko wóoluwu damaa xam. parce que géejewaay bi xaw a non du sax man mënoo war a mën a nekk sama élève ma laa jàngal ka bëgg xam loo xamul te man au moins mën ndax xam ci lam lu ma xamul. mais li tax wóoluwoo ko. combat xanaa nag mën xanaa nag ah mën na maa sot branlo di woote ji di wax ak ñii. waaye man lu ma làmb làmb. ñil ma ko mën a jàngal fii fii neew na trop. mais ndax wóolu woo parce que moom mënul bokk ci staff mu wax nga wóolu woo ko da nga ko doon da nga ko non parce que man du ma combat du ma préparé combat trois mois nga nga pré combat trois nga préparé mu des quinze jours nit ñëw fal di changer changer sa programme loolu man dinaa ko nangu. Ah, ah, waaw waaw du ko def. après mu sant du ma d' accord am naa ne lii da ko bëgg ma du bi lan ngeen décidé Tafatine combat am taxawagul. Mhm. te mu mag la am na ñu bëgg combat am. Mhm. léegi bi yow ban message ngay lancé Thialis Faye lan nga koy wax. koy wax mooy lu mu waxante woon ak ñun ñoo ngi toog di ko xaar waaw na ñëw nag. ma mën naa am naa mënatuma nu seeti keneen loolu mooy. kon na ngeen di jàpp ni mënatul. ah parce que boo koy am un mois quinze jours wala mois kat li nga waxoon defoo ko kat lu mën a wax lu kenn du wax ne ci la combat bi yàqu kenn du ko wax. kon da ngeen jàpp dafa mënoon ah loolu man de loolu laa yaakaar xanaa la mu mënoon xëy na da koo mënatul mais loolu du dara. bu ko fekkee la mu mënoon da koo mënatul na yow noonu la mu mënoon mënatul ko waaw ñun lu ñu def. Euh, kii euh, Balla Gaye la leen dal xaw na leen dal tuuti. Mhm. ñu xam ñu gis ni yéen VIP yi ñi bëggoon ñi bëgg ñi ñu bëggoon ñu bëre ñëpp. Mhm. seen combat dafa am ay gàllankoor fan yi gis nga Gris Bordeaux ak Gaston loolu nan nga ko déggee. waaw loolu man wax rek la rafetlu moo ko dara. ndax itam Gaston wax dëgg lu waay mun di waxit it def na ci làmb yi dara dara la fi ci làmb ji man wax dëgg yàlla Gaston mus ñoo tegoo loxo xaw ma lu muy joxe dépasse xamul lu may joxe dépasse maa yor sama kër moo yor këram waaye wax dëgg yàlla def na ci làmb yi loo xam ne nii booba làmb di fay Sénégal dootul fay waaye Gaston vraiment diggam ak Gris waroon naa mën a gën a rafet ni mu demee nii ndax comme dañoo signante contrat ah kenn ku ne it waroon naa mën a respecter contrat bi nga xam ne du yàqoo ci yow li ñuy wax ne bu selu yooyu te it bu giir dem ak neen loolu da cee war a am vraiment te it làmb ji dafay am ñoo xam ne nag it li ñu yàkkamti mooy ñaan ñu fengo ba ñu tàggal leen duñ leen defar wala ñay defare dañu yaakaar nga yëkkati wu ca jox leen ku ñu yaakaar du ñëw dañuy jox la doo leen fa gis ñu naa dinañu defare diggante diw ak diw waaye waaye boobu combat warul mun a yàqu mm-hmm. waaw ah non combat boobu man wax dëgg yàlla combat la du komba parce que man ah man su ma yoroon sama xaax di ko teg ci Balla Gaye laay teg waaw du question bëre ak mystique euh, parce que gis nga premier combat bu mu te su ñëwee biir ñëw nii mooy gën a parce que. mooy mooy gën a métti. waaw parce que parce que lu mu bon bon Gris màgg na bala ay ay at nit ñi te it préparation ba nga xam ne nii giri moom la war a def pour mun a daan bala est-ce que Gris dina def loolu. est que loolu wér gi yaramam wala kattanam may na ko loolu. mais non ko koy parce que Gris moom bu amul woon confiance ci boppam du jël avance bi. waaw di nga am confiance sa bopp parce que bu doon ne damay bu waxoon ne damay daanu waa du ko jox avance te bu ne damay daanu kenn du dem stade seetaani ko ah, am na lu mu yaakaar mais nag gis nga sa waay boo gisee nen da nga naa nen a ngi boo gisee xeer ne xeer a ngi nii. kan waaw xam nga ne Balla Gaye fi mu guddi yi mu toll nii Balla Gaye ci dig dooleem na ni xale bu ndaw la. amagul 40 ans. kon da ngaa a xale bu ndaw la xale ak mag niroowuñu. ok Gris ma xam Gris yooyu itam eh, ah waaye man xam bu ndaw de moom. ci Balla man su ma mën sama xaalis laa wax. su ma mën sa xaalis ci Balla Gaye. ci Balla bu keroogee combat mhm. waaw. ci xam. fañu fu ñuy commencé xam fa ñu jëm. mais ci bëre nga ko teg wala. ci bëre. kon Balla Gaye moo gën a leer bëre Gris. ah waaw waaw loolu moom wax dëgg yàlla bala moo daq a bëre Gris nag su wax dëgg rek dikkee Balla moo daq a bëre Gris nag waaw. mais Gris na na xeex. waaw nga dañ ne bëre door waxuñu xeex de bëre door la ñu wax parce que bëre attention dof du bëre de bopp bu baax mooy bëre parce que da ngay bëgg a door bañ ñu door la dangay ngay bëgg a song bañ ñu song la loolu lépp bopp bu baax a calcul ci bëre. xam nga loolu ci bëre la bokk waxuñu xeex de bëre door lañ wax dañuy bëre dañuy door te bëre nag am na door am na song noo jóg caxabal ak galgal yëpp am na ci bëre te te kaay wax la ne am na mbër yoo xëy ne du ñu galgal de duñu nooju duñu caxabal. waaw. <laughs> mais per suñ dernière question mooy gis na instant bi CNG. Mhm. problème bi. waaw Alioune Sarr la 31 octobre bi lay jeexal. nan nga gisee coowul CNG bi ak ñi bëgg ñëpp taw ne dañoo bëgg a remplacer Alioune Sarr dañoo bëgg a remplacer Alioune Sarr. waaw xam nga CNG Alioune Sarr mandaam jeexoon na ba mu ne day bàyyi ministre des sports moo ko waat denk ko ne ko teel ma. mais coow li coow li nañu xanaa gars yi dañoo ñemewut ministre des sports ne ko kii yaa ko fi teg tegi ko fi wala mais dinaa la wax leen tey de CNG ku ko yor te li Alioune Sarr mënoon ko li mu ñeme ñemewoo ko dana yàquwaat man fekk naa fii stade fii mbër yi di door ay arbitre ba xotti seen blouson loolu Alioune Sarr a ko fi jële mbër yi yor ay bijjin yu moo ko fi jële Alioune xanaa kay yàgg na fi na dem waaye Alioune Sarr li mu fi def def na dara ci làmb ji moo defar làmb ji. instant bi yow kan nga gis na koo remplacer. non man nag wax dëgg yàlla ñi ñuy wax fii nii man gisaguma ci kenn koo xam ne ñëw na ne ma damaa bëgg. damaa bëgg nga xam ne du lu ñuy wote de. du wote du élection du dara. ministre sport mooy seet ku ko doy mu denk ko ko nan ñu bàyyi xel ci foofu. Tyson war na koo mën a yor parce que itam Tyson fi mu yóbbu làmb ndax mbër bu lekk sponsor nag gërëma ko nag waaw Kéba Kanté waaw ah am na ñoo xëy nii ñooñu moom ñoo yor làmb Kéba Kanté mooy kan ku ko xam ah, mooy dimbali mbër yu bari moo dimbali mbër yi Kéba Kanté man mënu ma laa wax ni mu mel xees la def boo yàlla mi kumpa séede na ne mënu ma la wax Kéba Kanté nii la mel xees na def boo macha allah di sañse lu rafet mën a may xaalis. loolu nag taxul mu mun yor ko. Ah. waaw mën a may xaalis taxul sax nga mën a yor sa kër yow. mais dafay jàppale mbëri nag. ma ne am na ñoo dañuy yor di may ci àll bi te boo demee seen kër dañuy tubranke. Ah, yor xaalis di may attention de. Kéba yàgg na ci social. ah <laughs> waaye waaw mën naa am yàlla na ko yàlla gën a jàppale ba mu gën koo mun waaye xaalis taxul nga yor seen seede déedéet Alioune dafa yor liggéeyam day dem liggéey boo Alioune boo ko noonu sa numéro téléphone la am mais na la wóor ne jot parce que boo wóoroo yëpp day ah? Ah, moom nag jeexal na nañu seet na ministre boobu seet keneen ku ko remplacé ko remplacé coow fi am rek wax na na dem na dem mais yàgg na fi man nag su doon mën a su ñëpp nee na dem damay dama leen di jox seen yëf dem toog continuer sama liggéey mm-hmm. l' émission tire à sa tey ñu dalaloon ki nga xamante ne moom mooy Mbaye njing mu ne coach euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Tapha Tine mu ne koo xamante ne wax dëgg yàlla mën naa laa wax ne confiance bu Tapha am ci moom gisuma keneen ku ma ci am ndax nee naa kii toog Tapha la ba tey ndax lu mu wax la Tapha defal mooy def bañ ne ko mooy waxaale ñu bari nag ñu ngi leen di ŋàññi ne léegi da ngeen a bàyyi manager yi ne la yéen agent yi yéenay wax loolu loo ci loo ciy wax. am di ba mën ak moom. maamam ak sama yaay bokk ndey ak baay Tapha xaalis boole wuñu am na ménageur Mbaye Thioune mooy ménageur am. mais li tax ngeen écarté ba Tapha Tine di feeku vingt mille boo fi mu ne nii Mbaye Thioune mooy ménageur. mais tax ngeen écarté ko. déedéet écarté wuñu ko de Mbaye Thioune mag la te yaramam daa neexul woon mag la te yaram neexut yaramam neexut am na ci coono yoo xam ne nii sax. bi keroog bi ñuy signé gisee ko man maa fa toog man maa ko fa tooga mais du ñu waxaale komba lu ci ndigalal Mbaye Thioune parce que bu du ñu waxaale sax Mbaye Thioune mooy waxaal ne ah dem leen def nii bu ngeen demee wax leen lii ak lii mais loolu wax dëgg yàlla mbay bi Tafatin di commencé ba léegi mu ngi ànd ak moom te incha allah moom la ñu fas yéene àndal ba sunu borom def li gën ci ñun ñëpp. taqale ko moom ti tey béré te faati licence safar ju jël ko jox ko keneen loolu du am te man su ma ko waxee parce que man lu ma wax loolu lay def tafaatin xam na man xam naa parce que du tey waaw. looy tàggatoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen ñaanal ngeen am fan gu wér gi yaram aaju bi faju yàlla sam leen sam njaboot gi ah, seen journal bi seen wasaare. gën a wasaare bu yàlla def ci xiiwal bu yéen ñëpp ngeen tedd ci bu yéen ñëpp ngeen yore oto fu ngeen jëm waaw di nuyu nag waa re bawol di nuyu reefan colo ga ma dekk maa ngi sant bu baax la gërëm di gërëm sama mag di sama kilifa Cheikh Moussa maa ngi koy siyaar bu baax di xam ne nag ah wax ji ku mu laal rek maa ngi lay jéglu waaye nag damay wax sama dëgg rek te yàlla mi ma bind tax ndax man su ma dee man dong sama bàmmeel maa ngi siyaar ñëpp sama patron Lamine mu seen Nalakan ñi ma bokkat liggéey fii ñëpp samay patron maa ngi leen di siyaar di leen magal di leen jox seen cër seen wàccuwaay di sant ñu baax nag fan si club di siyaar magal waaw ñoom Pa Aline ñoom Siga Dione bàyyiwuma kenn supporter Mbaye ak Lo maa ngi koy siyaar bu baax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yeen taw tawfiq ak taysiir